de la république ma bëgg mu delloo ci xelam xam ni ba ñu koy fal bu ñu xamoon ni fii la ñuy mujj duñu ko fi teg li may wax nag sans engage que ci góobe gar ko nëbbatuwuma bu ñu xamoon ni fii lay mujjeeg réew mi duñu ko fi teg ma bëgg mu delloo ci xelam nga xam ni léppay jeex te ku ko ni woon dina fi toog deux mille douze ak léegi mu weddi ko ndax plan bu ne tëraloon nañ ko ko kon su xalaatoon tuuti dina am yeneen doxalin yu mu def lu dul di tëral ay nit di leen comploter ba ñu yegg si fii tey mës naa ko wax ni ko moom yàgg na booba jóge na ci nguur gi mu nekkoon ñu daje ci benn barab ñu présenté ma ko ma ni ko su fekkee ni yaa ngi gëm sa bopp gëm yàlla ku yàlla ne di toog ci réew mi di nga fi toog waaye boobaak léegi ma di ko suivre amoon yaakaar ci moom ndax ñi ko fi jiitu woon ñëpp ku ci nekk def nga fi dara ba dem waaye ay mag la ñu woon ñu jàppoon ni comme ndaw la luy door a yegg juddu après l'indépendance yóbbu Sénégal fu ñëpp ne est-ce que malheureusement tel n'est pas président delloo sil sa xel te la seet sa encourage yi fi xew bari na te nguuru yàlla rekk a jeex bis dina ñëw di nga fi génn ni ci lii walla ci nale li xew nag ñu ne ku ci wax ñu rëq sa ndigg wala ñu jële la fi mooy troisième mandat yow yaa taxawoon ci devant devant le peuple sénégalais adduna yëpp di la dégg nga waat ni bii ngay jeexale ñu dem ba ci biir feebaru nguur dugg la gis nañu la xew ci suñu voisin yi du ma tudd tur di tooñ bu fekkee ni loola moo la ambitionné ba tax nga jàpp ni foofu ak fii ñoo yem ci erreur monumentale delloo si sa xel ñun ànduñoo ak yow ci lii léegi sax réew mi àgg nañu ci sëriñ su waxati sax ñu ni dañu noppi torop waaye dafa ci am ñoo xam ne ay suñu kilifa la ñu mag la ñu wax nañu ba sonn mm-hmm. te mag nag ku ko yëgul mu yëg boppam mm-hmm. teg loxoom ci dëndam ni mën a jiw looloo tax ñoom dañ leen di ñaanal yàlla ñu yàgg fi waaye ñu nag yow nag dootuñu noppee ci insha allahu taala ci kattanu yàlla ak baaxam façon bu ne ñu ngi koy jéem mm-hmm. malheureusement dégguloo ñu lii xew nag li ma ciy andi man li ma ci gën a metti du sax affaire u Sonko dëgg la metti na ak li ñu ko teg ak li ñu ko wax te li ma jot a dégg yëpp ci média bi dégg ko ci ay nit dégg déglu ko ci ay sources yoo xam ni wóor na ma ni ñii lu ñuy wax xam nañu ci lu leer lépp dañ ko comploté de A à Z waaye nag olof Njaay nee na kuy gasal sa noonu pax bu mu xóot ndax ëllëg ay tax mën nga ca dugg mm-hmm. fii lu ne xew na fi yàlla ni patt rek di seetaan ñu jàpp ni dafa fàtte déedéet dafa dënniir lu rek président delloo sil sa xel président delloo sil sa xel da nga seetaat sa entourage loolu benn la li ci des ma jëmale ko ci ndaw yi réew mi nga xam ni ñu ngi assemblée nationale ñu teg leen fa askan bi teg leen fa am ci ñoo xamante ni bi dara ñorul leen ludul lépp luy kontaan loo président rek ñu nga ca suba ngoon guddeeg bëccëg te bu leen fàtte ni deretu nit ñi lañ leen di fay ngeen koy lekk te bu ngeen ci lekk billaahi wa kitaabihi ëllëg a gi ñëw bu ngeen duggee biñ ban bàmmeel dinañ la dinañ leen ko laaj summa la tusalunna yawma naa anin naar alquran la hmm. yéen nag leen yàlla ñu si bare bare boobu hmm. wala bu ñu ko gëmee yaakaar nañ ni loolu yëpp ay caaxaan la hmm. sama mag Moustapha Niasse moo nekk président assemblée nationale depuis le temps mi ngi ci ci ay pouvoir depuis le temps Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade ba Macky Sall ñëw ma bëggoon moom itam lépp lu ñu fa indi di ko woote en tant mag mu fekkee lu bare te yàlla defal ko teraanga lépp lu ko wóor ne lii ay complot la mu bañ caa dugg te des yàlla hmm. te xam ni yàlla ñëpp la fi nekkal beneen bi ci topp mu ñi nga xam ni ñoom la ñu wax ni ñoo yore affaire justice boo ko dee seet bu ñu waxee dëgg ak bu ñu waxul dëgg dafa mel na ñaari Sénégal a fi am mm-hmm. et c'est la vérité fii mm-hmm. nga xam ni tey jii mooy procureur sama benn wax rek laa koy fàttali mu bàyyi ci xel ak képp koo xam ni dale ko ca ministre de la justice ak ñi topp ci seen gannaaw yonent bi dafa waxoon bu yàgg ni mm-hmm. kër yëpp ñett rek lañu ñaar ñëpp safara la ñu jëm rikk waay ngeen bàyyi wax jooju xel te xam ni yàlla du waxantu mm-hmm. ndax nit am dëggam ngeen ëpp ko doole ba dëgg ci loolu fexe ba néewal ko doole dugal ko ci kaso yaakaar ni rëcc ngeen mm-hmm. xamu leen li xaw kon delloo si leen seen xel man dama bokk ci ñi ñi ni fii ci Sénégal du ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañu intègre am jikko yu baax a baax a ragal yàlla lool te xam ni ëllëg dina taxaw ba tax lu ñu d'accord lu wane ni d'accord ci waaye am na ñoo xam ni na lu ñu leen andil rek ñu ànd ceeg moom def leen ndànk mhm. delloo si leen seen xel mhm. delloo si leen seen sago mhm. beneen bi ci des moo di le peuple sénégalais ñoom laay waxanteel di di leen di leen di leen massawu coono te di leen wax ni yàlla jeexul ndax dafa amoon waykatu arab bu yàgg bu waxoon ida shaabu yowman araada al xayaata fala budda an yastajiba al qadar fala budda lil layli an yanjali fala budda lil qaydi an yantasir kon nag yéen le peuple sénégalais man maa ngi ànd ak yéen de tout cœur maa ngi ñaan xale yi nañu jéem a def lépp lu ñu mën a def ba dox mbuumu njaam ji ñu ñu bëgg a takkalaat bees waaye ci façon boo xam ne mm-hmm. ñépp dinañu xam ni taxaw nañu def nañu li ñu war a def waaye ma leen di ñaan léeg-léeg nga romb koo xam ne dafa bokk ci sénégalais lam daan ndeysaan dajale ba am oto mm-hmm. ëpp naa lakk kooku nañu jëflanteeg ñi ñu war a jëflanteel ba ñu xam ni réew mii santul fay santul sàll santul mbàkke santul si santul ay dara njaay sénégal njaay la wax ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañu ay doomu réew mi lañu bii daal laa ni woon dinaa ci sànni sama kàddu ñu delloo ci xel lii dëpp na ñaaw na am na ñoo xam ne ku leen woon ci Sénégal wax leen lii daañu ko weddi te man dama bokkoon ci ngeen baal ma ci ñu contrôle Ablaye Wade rëccu naa ko nag maa ngi koy jéggalu bu baax moom waaw lii daal laa amoon ci lu may wax encore une fois di jéggalu ci kàddu gi la ma ci jublu woon du vexé kenn waaye yi tamit boo dee nit di xam li xew ci réew mi te bokk ci réew gis loo xam ne mi ngi am te sànni woo ca sa kàddu gën mm-hmm. yeesu la allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim